taxaw nii mooy Louga gannaaw ba ñu déparé fële ca kër si waa gi nekk euh, Darou Manane ànd ak euh, force délégation bu takk takk ngir rek ñëw taxaw fii fas yéene waaj nag ànd soxna maam Issa Mbacke am lu café ngir dem Sarsara waaye ci biir loolu ñu ngi ak jëwriñ yi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi di sëriñ Abdoulaye Guèye mi nga xam ne kenn la ci jàmbaari lislaam yi nga xam ne ñu ànd soxna maam Issa dinañu tàllal suñu micro euh, ñu yëkkati ñu ay kàddu résumer ñu yoon ñu ñu déparé ak li waral ñu escale fii waaye buñ ko jógee fan lañu jaar ba keroog ñu ak shot gën a jéemal wala ba ba ñu àgg sa saara sablan dinaa buñ ne siyaar na loolu rek mooy euh, yitte ñu bëggoon a xam euh, naka ngeen naka ngeen mën a résumer yoon bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñuy déglu te di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di suñu yaakaar tey yàlla si xadim xadimu rasul di ñaanal ko fi nekkal mu Cheikh Amadou Moustapha ak mu Cheikh Amadou Bassir xalif général des mourides yàlla na suñu borom yàggal lool may ko wér ah ni ñu ko xamee nag ñu yoonu Sarsara ni ñu ko baaxoo defee at mu jot ci ndigalu gi fi nekkal Serigne Touba waaye di ko ànd ak eh, jàmbaar yoo xam ne tam ñëpp ràññee nañ ko ci yoon wi muy soxna maam Issa Mbacke bintu Serigne Modou Fatick Serigne ma Magamba ak délégation bi nga xam ne moom la àndal jóge Touba ak délégation bi nga xam ne ajaratu Famaloo moo ànd ak ñoom bàyyi ko Ndakaaru guy Masaalikul naan ñu daje fii nag ci Louga niñ ko baaxoo defee at mu jot euh, fii ci Louga nag euh, lu tax ñu daje fii du hasard ndax xam nga ne sëriñ bi li muy tukki tukkim bi jaar na ci barab bu tedd bi di Louga euh, moo tax ñu jaar fi soxna si tam dafay am nag ay daayira am fi ay wëllëre am fi ay xarit ndax fii nu taxaw dañu fee mas a jaar aw yoon woo xam ne yoonu boppam la mu taxawoon fi rek ngir dallu xamante ak waa barab bi eh, ñu fas ak moom kóllëre ne ko saa way demati rek gànnaar na nga fi jaar booba sax Sarsara commencé guñ di ko def liñ commencé di ko def ba léegi itam saa wu ñuy dem fi la ñuy escale eh, fi la ñuy ndékkee di fekk soxna su baax su ñuy wax soxna Isa ak borom këram di taalibi Sëñ Abdou Lahad bu mag waaye di fekk tam soxna Ayda Samb moom itam muy wëlëre soxna si ñu defar ay xew yu bëree bëri di ko waaye ñu fiy dajee itam ak soxna Umu Jaw mi nga xam ne moo jiitee Eh, ahlu café fii ci Louga waaye ñu fi dajee itam ak soxna Njaw Jang mi nga xam ne moom itam sopp soxna si la nga xam ne ci télévision bi rek la ko xamee waaye moom itam day fat ay xéwal yu baree baree baree bëri eh, xéwal yooyu nag moom la ñuy taaxeerlu su egsee nu xéwlu bu nu xéwloo ba pare nag def ñaan eh, soog a dem nag nga xamante ni mooy ndar ndar nag moom buñ fa jaaree escale bu gàtt lañ fay def ci ñuy wax place Ablaye Wade ndax la ñu war a jëlee recommandation bi nga xamante ni mooy yombal yoon bi ci gouverneur bi nga xam ne moo teewal nguuru Sénégal foofu ca Ndar kon daje bi fii dajeeb kóllëre la waaye dajeeb négante la tam ngir ñi nga xam ne ñëpp dañoo war a ànd ak soxna si egsi waaw ah, ren ñuy sant yàlla bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla boo gisee convent bi li ci ne ci ay oto ak li ci ne ci mbooloo da ngay xam ne Serigne Touba amul tànki gannaaw tànk kanam rek la am te li si ab laat waxoon ne kuy doxu doxu ku dem ma dem hmm. ku demul ma dem boo geesoo gis mbooloo ci sa ginnaaw kon ñii ñu gis ci mbooloo suñ ne jigéen moo leen jiite hmm. kon dañuy xam ne pas-pas rek moo am solo waaye du góor wala jigéen hmm. wala mag wala ndaw ci yoonu Sëñ Tuubaa waaye boo amee pas na li tax ñu daju fi ci Louga mooy xaarante fi waaye itam xéewlu fi loolu itam toujours damay wax ne sant yàlla bu wér la ndax mag ñi daan fekk Sëñ Tuubaa gànnaar eh, kenn ku nekk la nga daan yor ci looy loo eh, ci sa ndigg nga ko daan takk muy këmbas cere lele nga jaar ci baram ñaan naan ñaan ndox naan jàllalee ko lol ngir meuna deugere dëgëral sa ndig ngir meuna a Serigne Touba tay nak yalla dimbal nañu ba tiranga yi bari na lol ñamu Touba lañ ci xewlo bam dess kon nak alhamdulilahi rabbil alamin buñ ci wacce tam mbokki talibi bëgg jullu yor yor jullu yor yor ñu bëgg jang alquran jang alquran ñu bëgg jang xasbi jang xasbi xasida ndax tam mbirum Serigne Touba mu ne tam nang ko war a ci sunna da waxone tam magal gu may magalal rek nañ ko tek ci tax sunna bi sunnati yaquduna lil jannati bi hasdiyadin minnati muxlisin wa ahsani waa café gi tam ña nga ne di tàngal café gi parce yéene nag may ñëpp ñu nekk fii ci Louga ak garage bi suñu dal loolu daal sañ ñoo ko mbooloo bu toll ci ko coordination bi tamit foofu wàllu coordination bi nag mu wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe ndax li tax amul jafe-jafe mooy ñi ngi ci àndal ñëpp ay taalibe la bëgg lu baax hmm. ñoo xamante ni bi ñoom itam yëg nañ ne Sarsara kenn mënu faa dem te sonnoo donte ñun yàlla wàcceel nañu coono bi lu bëree bëri euh, bu dee ci édition yu njëkk yi doon na am léeg-léeg euh, ñàkk xam gi ak ñàkk euh, yëg ne coono bi lii lay jur mm. ndax tam boo xamul coono bi li jur mën naa metti ci yow waaye boo xasee ba xam ne jur mm. mënoo koo fàggul sa bopp sëñ bi rek la ko mën a dootu metti ci yow moo coordination ci benn mm. wax tam moyen de communication ba nga liñ daan am sax ay benn numéro téléphone tardé wala turu nit tardé wala yooyu léegi ak jumtukaay xarala yi eh, toll nañ foo xamante ne nit mën na fu différent waaye mën na laa yónnee filiation nga mën koo dugal moo tax ci benn jafe wax allah ah, réew yi tamit nga gis euh, euh, pour ko gënaloo loolu tamit jëkkandoo waaw loolu itam dafa am ñun suñu pàcc fu mu yem ñun suñu pàcc mooy bu ñu jógee rek euh, Touba ba baa ñuy àgg Rosso Mauritanie bu ñu àgg Rosso Mauritanie danañ fekk foofu waa fédération Cheikhul Khadim bi nekk euh, Nouakchott seen jëwriñ itam di ko am Pastef di ko am itti di ko baax muy sëñ Abdou Aziz Diop. bii maa ngi jokkoo ak moom ba 3 heures de matin. incha allah ñoom yaakaar naa ne suñu àggee Rosso foofu la ñu leen di fekk su ko defee ñoom buñu àggee foofa nag ñun dañuy jël lépp teg seen ak ni Sarsara siiwee ak euh, nekk ñoo xamante ni bi ay ay ay rakk ñu mën a nekk ay doomi ndey yaakaar naa ne daal suñu diggante am jàmm te it sëñ Touba mi nga xam ne moom la ñuy doxali dox bi moom itam waa Mauritanie dañ ko teg bu yaatu yaatu na damay wax ne Mauritanie mooy dëkk boo xam ne amul tijaan amul murit amul xaadir ñëpp naa ne bu jaar hmm. a jàll ci jàmm dem def ziar eh, daal kon ñu ngi sant yàlla amul lépp daal incha allah dana demee ni mu daan demee ngeen hmm. soxna suñu borom xanaa di ñaan rek dem ci jàmm del ci jàmm te lépp حمدي وشكري لمن كل fi dinu sagal ngir jëm seigne ablat mbak té ñun lu seigne ablat bu ñu yëngu ci suba ba ca ngoon rek mom lañ am ndax moy suñu buntu seigne touba ndax fekk la ci say laaj leen yor la bani mu nelaw fukki at ak juroom musuma muy ndigalam o maag samay bok kenn du ma ci faale may faale wu ma ci kenn ngir señ Bamba kon tey ñoo ngi lay di la gërëm di la ñaanal nag nga ñaanal ñu nag ñuy rey gëléem yi fii ak nag yi di la teeru ngay jiitu si balaa màggal gi egsi si dooley sëñ Abdou Lahad nii nga ñu toppee ndax ñun sëñ Abdou Lahad nga ñëw ci yow nag da ngay liggéeyal sëñ Touba te di nga liggéeyal sëñ danga da nga àgg ba yegg ca yoon wa ci barke Cheikh Abdou Lahad Mbacké ndax saa boo yëngoo rek sëñ Touba ngay liggéey kon ku liggéeyal sëñ Touba rek da nga xam ne bu la sëñ Touba fayee nga xam ne noonu sa yëngu yëpp sëñ Touba nga fay dal na la yàlla jëmm sëñ Touba mena tax na topp la jëm sëñ Touba seen tey ba nga gis góor jigéen magal ndax jëmm sëñ Touba rek a tax kon li ma bëgg yéen ñëpp ngeen dimbali ma ñaan le ma ci barke Cheikhul Khadim barke ma Samba Mbacke soxna Isa Mbacke mi sëriñ Tuubaa bàyyil ko ko fi bàyyil na ko fi ba mu ko bëggee ak ni mu ko yéene ci barke borom loolu la bëgg yéen ñëpp ngeen wax seen gémmi kon na ko sëriñ nag sang bi ñoo ngi leen di siyaar bu baax nun kontaan nan bir nañ lii soxla si wax rek doy na noonu daal sant nañ yàlla yéen itam julli sëñ Tuubaa ngir jëmm ji nga xam ne sagal moo nu jàppale moo nu dimbali barke borom Tuubaa nii mu nu def nag yàlla na ko sëñ Tuubaa def nu ko raw barke Xaadimu Rasuul barke bi asalaamaaleykum wa rahmatullah si jàngee jëm si jëb laaj rek moo tax ñu teew fi ndax dañ fee mos a jaar jógee Mauritanie ànd ak maam Amin Sëñ Falla ak maam Aram Mbacke mi ak soxna moom mi mu aatu jaay mu sëñ Cheikh Penda ñu toog ñu toog fii ñu jaay ñu gis photo Sëñ ñu wékkee ma ne ko ah yow photo Sëñ Abdou Lahad bi yéeme na mën na Sëñ Abdou Lahad moo ñu yar moom moo may soxna si ma ne kon de fii dootuma ko teggati waaw loolu moo ñu indi ci béréb bi ñu dem ba ñoom dootuñu jaay ndekk dañuy rey ay nag di rey ay ginaar dañuy dañuy teeru wala waa Louga yëpp ñu teeru man nag su fii ko yàlla teg nee naa leen ma doon dem mut même bu dul sot saaraat su may dem dama fiy jaar jaar lépp nag dara waral lu ko loolu jëmmi Serigne Abdou Lahad Mbacké rek di di liggéey Serigne Touba rek di xent tànk Serigne Touba te xam ne ñun dara Serigne Touba fu mu am seen seen teggi ko te moom mi ko ne jàkk xam ne am na ngërëmul Serigne Touba loolu rek moo ñu bàyyi ci moom nag ma ne ni may ñaan loo ma ne sàkku yéen ñëpp ngeen ñaanalal ma ko suñu Adama Jaxate ak soxna Issa Diagne ñoom it ñu yàgg fi lool te wér barab bi liñ fi bëgg suñu borom defal leen ko ñu dund ba tabax ko ba nga xam duñ ñëwatee duñ fi jaaree di lañ dañ fiy fanaan loolu lañ koy ñaanal nag ko ñëpp ñaan ndax yéene ji moom rëy na lool kon na yàlla na yàlla eggale yéene ji teewaat ko déwén kenn bañ wopp kenn bañ mag ku fi teew nag yàlla na yàlla faj ci defar nag. eh sëñ Bamba saa waay. waaw dama ko def ay yoon mooy de suuf xam naa. waaw dama ko def ay yoon mooy de suuf xam naa. réseau bi mooy. ah def réseau bi kay téléphone talaata ko jëlaat ko. loolu laay def nii. Euh, jërëjëf euh, soxna si ñu ngi ñëwaat tey fi nga xam ne moom mooy Rosso bi nga xam ne daf ñu may ñu escale rek la ci formalité yi jëm Sarsara te Nouakchott euh, bés bi nan ngeen ko doon waajale ak yan jafe-jafe nga ci nemmee ko ci yoon. waaw jërëjëf asalaamaaleykum sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaat Serigne Touba Mbacke mi sunu yaakaar tey lépp sant sëñ Massamba bu baax a baax mi sunu bunt ci sëriñ bi bis bi nag niñ ko doon waajal mooy comme nii rek niñ waajal jàng alxuraan karim ak jàng xasida ak dajale nit ñi di leen wax coono yi dëgg-dëgg li sëriñ bi doon jànkonteel ci Sarsara bañ xam dëgg-dëgg àq ja ba buñ demee xam noonu lañ fay mën a nekkee noonu la ñuy waajale Sarsara waa at yi yëpp tamit noonu lañ ko doon waajale yàlla dogal ñu koy def ay at at ba ren ñu départ ni di dem nekk fii ci béréb bi tey ci Rosso Sénégal comme niñ ko daan defee rek Rosso Mauritanie heure bu ñu wàccee rek ba jékki dañu fi wàccee benn kaamelu alxuraan ñaan yoon wi sedd kuy ñu door a dem. waaw léegi nag yoon bi moom jafe-jafe yi mi ngi wàññi ko wax dëgg yàlla ndax naar yi léegi xam nañ siyaar bi Sarsara miin nañ ko bu baax ndax délégation bi nga xam ñooy ñooy jógee ci ambassadeur Mauritanie bi ñuy dañu fi lañ leen di fekk. ñoom ñu defar formalité yi ba nag nga xam suñ ñëwee rek ñun dañuy daal di waaw. loolu moom ñoo ko ci sàkku ndax yoon wi mais mi ngi wàññeeku waaye des na ba léegi daal. waaye nag li fa mën a yombal mooy ñaari état yi daal ñoo ngi sàkk ci diggante ñaari état yi daal ñu jàppale ñu ci bi ñu jokkoo rek ñu gën ñoo yombalal yoon bi ñu xam ne siyaar annuel la kon état bu Sénégal ak Mauritanie dañ cee war di jokkoo di ci jàpp bu baax ba nga xam ne dinañ mën a accompagner ñu dem ak dikk te duñu am benn problème waaw. xanaa ku fa dem rek xam ne Sarsara moom ba fa sëriñ bay dem. moom nee na tukki be bi muy dem Gabon da doon liggéey waaye Sarsar dafa doon fayeeku ji wala ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo ba defal ko fa lam ko fay defal kon képp ku fa dem war nga am la fa mën a jàngat nga xam ne fee Sëñ Tuubaa mi ngi ko tudde woon ardu saalihiin na suufus gaañu baax na kon ku fa dem dañ faa war jele lo xam dañ ko mëna jarri jariñoo ji buñu dem kon ñu defar jëm yi bam sel ñu defar jikko yi raxas xol yi bam set buñu démé ñaan fa yàlla fajal ñu suñu aaje ñu wat ci jàmm lool daal lañ fa mëna jangati ndax sëñ bi sonnoon na fa lool waye nak fa la ko suñu borom faye kon fofu mooy date de naissance yoonu mourid ndax fofu la yoonu mourid taxal fi la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxee wérdu maaxuus minallahi wasilatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam

ici pour le diable de Sarsara. Euh, qu'est-ce que vous pouvez retenir par rapport à ce euh, trajet que vous avez donc entamé depuis ce matin euh, Tout d'abord, nous nous excusons du retard que nous faisons chaque année ici au niveau de l'embarcation. Seules les formalités nous retardent. Donc la commission est venue, mais je pense que la commission ne peut pas régler ce... Ça reste encore. Oui, ça reste encore, ça reste encore. On doit payer le bac, on doit payer la mairie, les assurances et tout ça. Et pourtant, le ZIAR est reconnu par les deux États, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien reconnu parce qu'à chaque fois, on nous donne l'autorisation de traverser euh, les dérives. Mais ça reste encore, ça reste les formalités. Où se trouve la difficulté au niveau des formalités de quel, euh, euh, état Du Sénégal Non, pas du Sénégal, mais de la Mauritanie. C'est la Mauritanie qui... Qui complique les choses qui complique euh, les choses. ils nous taxent beaucoup d'argent, surtout pour payer la traversée, pour payer les taxes, payer l'assurance et tout. C'est trop. Donc on doit avoir une, une faveur. On doit avoir une faveur. Parce que chaque année, on veut on vient chaque année ici en Mauritanie pour faire la ziara. Donc, vous voulez donc que l'État mauritanien euh, facilite quand même la tâche de venir oui, oui, effectivement, nous voulons que l'État, l'État met sa main là-dedans. Hmm? L'État nous facilite la, traversée. Parce que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des musulmans. Et ce que nous faisons, c'est, ce n'est rien que de l'islam. C'est notre cher guide qui a été déporté en Mauritanie à Sarsar, au niveau de Cheikh de 1902 à 1907. Donc, c'est ce, pèlerinage-là qu'on fait chaque année. Et vous avez donc constaté un manque d'assistance du côté de l'État du Sénégal Du gouvernement. Du gouvernement. Il y, a un manque d'assistance du côté du gouvernement. S'ils S'il nous assistaient, on n'aurait pas de problème de, de formalité. On vient, on passe, on nous laisse passer. Mais il faut que le gouvernement mette sa main là-dedans.